Yo, share, share, King Baba Blende, chauffe d'ailleurs 18 décembre gars yéen a jour de événement bi donc di wax ni sénégalais pour parler. et puis ñëpp a sax ba ah. donc les li sénégalais yëpp di ñaan man tamit dama koy étant na nous la man gars, blende 18h30 19h je gars donc Killa Killa show of the year Brak is ngaa ko blende maa ngi ci biir na blende blende yëpp ñëw hip hop moo aay le 18 décembre dund